Sall wax loolu lu rafet la lu mën a nekk la encore parce que tey quartier bi set suñu avantage la ñun ñëpp waaw tey parce que su setee setalu Macky Sall ñun la setal waaw te kon war nañ kaa mun a defar avant Macky Sall duñu ko proposé kon suñu toogee ba mu ne dañu jeexal di benn bés dugg bi benn euh, ko ba mu set ah man man alsa man dama ci am kontaan ci bu baax a baax baax a baax waaw changé sa même su amutoon ndàmpaay sax dañ kaa war a mën a def buñ ci xaar ndàmpaay buñ ci xaar da parce que suñu avantage la waaw man de kontaan a ah man de li ma ci xar ne war na cee a am jafe-jafe xanaa matuwaay yi nga xamante ne ñoom dañ koy nettoyé ay genre rato yooyu mais je crois loolu su teewee parce que jeunesse yi dañuy toog ba 11 jàpp seen koñ waaw kon loolu su teewee normalement war nañoo mën a nettoyé suñ koñ waaw affaire bi war nañu mën a jël sécurité pour gars yi nga xamante ne dañuy jël mbalit foo jot sànni foo jël teg sa mbalit affaire yooyu loolu moo war a ñooy jël mbalit ñun ñi nga xam ñooy jël mbalit di ko sànni ñu jàppale leen waaw di xool mbalit boo xamee ne pour poser kaay mbalit kesal ñu koy teg foofu ñoom it ñu jël ay poubelle teg ko foo xamee ne pour yow soo génnee di nga ko mën a gis soo yore sa mbalit sa loxo di ko fa mën a sànni parce que soo gisul mbalit encore mënoo gàddu mbalit di dem ak moom rek waaw il faut nga déposer ko fen waaw kon ñoom it war na ñoo mu teg ay poubelle yoo xamante ne o au moins nga jël ko di ko teg ay kii sa mbalit daal di ko poser fay mbalit xanaa loolu de xalaat bu rafet la ndax seet seetal day loo xam ne euh, balaa ñu koy wax sax ñun ñoo ko waroon a xalaat di ko defar suñu bopp ndax réew yi nga xam ne ñoo développé yëpp ci Sénégal euh, Maroc ak Espagne ay Italie ak France ak te boolewu ci set rek dafa yooyu am na lu ci manqué moo tax set dafay loo xam ne ci diine ak ci lu waay mën a nekk rawatina ñun ñu nekk ci diine lislaam ñoo war a gën a fonk set ndax set moy jikko bi gëna am mana ci doom adama té nit ki e, yar ak teggin ak set fay day nekk lo xamné ne daf koy gëna jox tar gën ko jox martaba gën ko jox ful ak fayda motax ñun rawati ni ñun wa Sénégal war nañu gëna fonku set. wa nit ñi ñom e, li ëpp ci nit ñi yalla na ma yàlla baal dañuy nit ño xamné dañu dem ba nga xamné setangé ñing ko bëgg ci seen biir kër té set ci jikko la wara nekk ci nit ki. jikkoom bu ba bu ko rafetalee baaxal ko fépp fu mu dem war na ko mën a defee comme néegam wala këram buñ sàmmoon loolu rek réew mi day set te li nga xam ne mooy gouvernement yi mënut fenn fu ne mu dugal fa loxoom mbaa mu teg fa tànkam mbaa mu teg fa bëtam ñi nga xam ne ñooy ñi koy conseiller te jege ko te doon nit ñu ko war a wax dëgg li ëpp ci ñooñu ñooy ñi nga xam ne duñ wax dëgg dañoo war di leen wax dëgg ñoom ñi nga xam ne dañoo ne ci biir kër te duñ génn duñ visiter duñ duñ dox dañoo war képp ku nekk kilifa sa biir kër sax war nga am ku la fay conseil di la wax lii sa dëgg waaye léegi li yàq jamono bi kenn ku nekk day defe ne boo nekkee borom barke bu la jegee bu la waxee dëgg léegi tey nga ne kii dafa réew wala kii daf maa yab wala kii daf maa xas te loolu doonu lu war ki gën a doon kilifa tey moo war a gën a am ku koy wax dëgg koo xam ne du xool lu mu koy jox mbaa lu mu koy defal mbaa fu mu koy place bu mu koy jox nit day wax dëgg yàlla ndax loolu day loo xam ne mooy lu lu war ndax euh, li arab nan kalaamul xàqu kamis la rahdi kuy wax dëgg dees na la déglu ndax biir ni muy soxlaa lum lekk ni la boromum nopp bu bëgg barke wala bëgg dëgg di dégloo ku ko wax dëgg man nag sama xalaat rafetlu naa yéen waa TFM lii nga xam ne mooy li ngeen di dox te di ko laajte ak di ko wax man maa ngi dëkk Touba chauffeurub taxi la fii ci dakaar moom mooy sama liggéey mais ay toilette manqué na ci dëkk bi ay sawukaay yi ñu war a saw ci mbedd mi dañ ko war a defar man mi dawalub taxi bu ma taxawoon ci mbedd mi saw fenn dañ naan damaa yaru damaa tilim damaa def nii mais am na ci loo xam ne état bi moo ñu ko mën a defaral moderniser dëkk bi rafetal ko defar ko baaxal ko bu ko defee ñun ñi nga xam ne ñooy askan wi ni ci réew mi ku ci ku ci def loo war a def ñu yar la teg la ci ah loolu lu baax la franchement loolu lu baax la ndax euh, dëkk moom dafa laaj set waaw set dafa baax ci am réew waaw ndax euh, set moom mooy lépp Macky Sall moom loolu mu def lu baax la idée bu rafet la ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax waaw ndax nit mun mënul dem sans set mënul dund sans set loolu mënul nekk waaw kër mbedd lépp douche tout dafa war a set waaw xëy na idée boo xam ne ni xëy na de duma ni yéex na yéexul xëy na day idée boo xam ne day doog a ñëw ci moom wala mu toog saytu xool xam ni lii war naa am ci dëkk bi mu def ko loolu laa xalaat man comprendre loolu nag bu mu demee ba xalaat ko ñun ñun ñun ñun moom dañ koy rafetlu bu baax a baax a baax xam ne set moom lu baax ci Sénégal affaire yoon Sénégal moom liñ ci war a jël ci affaire yoon dafa bari ndax li nekk ci Sénégal moom bari na bari waay goo xam ne nii ci lu jaaduwul ak lu nekkul yoon boo koy wax doo fi jóg dafa bari c'est trop boo koy wax doo nit ñi respecté seen bopp ñu koñ bu nekk ñu teg fa ay poubelle koñ bu nekk oto mbalit ñu leen di fay normalement ndax ñoom ñoom ñoo yor réew mi di leen fay salaire yu baax respecté leen jox leen seen cër jox leen seen wàccuwaay comprendre nga koñ bu ne ñu teg fa poubelle mbalit comprendre nga sénégalais yi ci boppam respecté tamit li mag Sall def fu nu teg poubelle mbalit loo lekk dem ba ci poubelle bi nga sànni ko fa koñ yeeg ruq-ruqaat am na poubelle yu ndaw am na poubelle yu mag foo xam ne fu fa yelloo wala mu jekk fa rek mu teg ko fa xam nga bu salte amee ñun ci sénégalais yi suñu ñoo sànni ci mbedd ci loolu laa la wax suñu jikko yi lan ci war a xool suñu jikko yi ci war a seet seetaat bari na ñun sénégalais yi ñoo war a gën a defar suñu bopp avant ñun ñoo war a gën a defar suñu bopp dangay gis ku dinaan sa mbuusu ndox sax sànni ko ci mbedd mi yaa ngi de lekk sa banaana sànni xool sa clémentine sànni loolu nag buñ la tegalee poubelle tegal la bu ndaw tegal la bu mag yaa may de nga romb ko boo ko gisee boo lekkee war ngaa dem ba ci poubelle bi jox ko man léegi may génn ci marché bi kanet laa yor waaye dama koo téye ba gis ki ma ko jox ne ko an seen balit mu ne maa nga ne man ko dugaloon ma fa loolu sénégalais yëpp buñ ko defee dëkk bi dina set muy fa ma jugee kees surtout feneen ak feneen raison yi di capital bi lu fu mënti doon Macky Sall respecté li mu wax te defe ko ñun ñu respecté suñu bopp aussi tamit topp ci ginnaaw Macky Sall jàppale ko ndax Macky Sall tamit bu jógee di def pour duñu jàppale ñun ñoo war a mën a jiitu jàppale suñu bopp